salaamaaleykum sama gars yi lii du résumé d' actualité lii samay wax waxi bopp la te maa ngi koy jëmale ci njiitu réew mi Sénégal muy président Macky Sall man dama xamul président ba fan nga bëgg a yegg wala fan la situation bi war a yegg pour nga génn arrêté hémorragie bi maa ngi lay laaj yow président de la république kañ nga nar a jël décision mbir yi arrêté mbaamu mu dakk président deret jaa ngi tuuru ay doomu aadama ñu ngi ñàkk seen bakkan ci ay manifestation dégg nañ Pape Malick Ndour waxam xeebu na lool waaye faluñu ko moom ak ñi jot a wax ñëpp ci gouvernement bi faluñu leen waxuma waxi far waxuma waxi politique waxi sénégalais lambda buy xëy di daani dooleem di xool nu mu dundaleeg njabootam loolu laay wax sénégalais yi sonn nañ depuis bi ma xëyee ba léegi maa ngi wër gaz ñu ne ma gaz amul parce que nit ñi boutique yi amatuñ gaz pénurie de gaz dafa commencé installé parce que ñi koy indi ci boutique yi amatuñu possibilité indi ko parce que dëkk bi dafa am ragal gu fi installé wu psychose moo fi installé waxuma waxu yàq yi waxu loolu bien matériel la nit ñi moo ñoo ko moom mën nañ koo liggéey seenu ñaq la li may wax mooy bakkan yi tuuru deret ji di rogalaat ci réew mi président bu amee cut bu dee Turquie wala bu dee feneen da ngay génn tweeté mbokk ak ñoom naqar woowu lu war a fanweeri bakkan rot dañ ci dossier bii ñu ngi lay nekk di la déglu yow rek yaa mën a jël bic xaatim dara communiqué walla nga génn jàkkaarlook sénégalais yi wax leen ñu delluwaat ci calme ne am na lu décision bu am jël revenir naa ci yow yaa am prérogative yooyu keneen amu ko ci senegal faluñ kenn ci sa ministre yow yaa leen nommé ñun yow la ñu fal suñu garantie sécurité yow yaa ko yor ñun ñooy reyante ci suñu biir ci quartier yi lu ñu nekk Guédiawaye Pikine nangam nangam di reyante ñun ñooy reyante am na leneen lu ci dolleeku loo xam ne musiba wala fitna boo ko yee di nga xam fi muy tàmbale waaye mënoo xam fu muy yegg am na ñoo xam ne dañuy sàcc am na ñoo xam ne dañuy profito ñu dem ñu fay leen journée ñu yor ay balu pistolet réel ñi yor ay jaasi gobar ñu yor ay mbolde di dóorante ci suñu biir di reyante pendant ce temps yéen yéen a ngi ci jàmm amu leen benn souci ñun ñoo am souci parce que ñeenti fan a ngi nii xëyuñu liggéey defuñu dara amuñu benn activité bu ñu mën a def man ci liggéey laa jóge ñi ma doon liggéeyal nee nañ ma mënatuñ koo def parce que wóor dëkk bi wóorut tabaski ñaar fukki fan ak juróom benn moo ci des président ban instant nga xalaat ne moom nga war a génn kenn du la forcer parce que dégg naa bëggoo lay forcer ci njëkk ak teraanga lañ lay ñaan waaye kilifa du ñig président matt naa day dagg deesu ko def aw askan kenn du doxaleek moom noonu fipp yi bari na y a trop de dégâts y a trop de pertes en vies te bu la neexee tey tey tey tey tey loolu dakk bul topp ñi naan la waaw gëmmal dóor loolu du waxu kilifa kilifa da ngay jekku war a dóore baale ñu ngi lay jéggalu Sall Ngari. asalaamaaleykum réew mi nag jaxasoo na metti na est que xam ngeen ni Sénégal tollatul ci sama yoon nekkul ci politique man lijjantiwuma politiciens yi sama bopp laa ku koy wax ne da ngaa xamul fi mu toll nii Sénégal tollatul ci. lijjantiwu ma Macky Sall lijjantiwu ma Sonko ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo xam ku fi toog sa bopp nga fi toogal réew mi tollatul foofu de xam nga fa la Sénégal toll képp koo xamante ni am nga possibilité wax te boo waxee nit ñi dégg noo génnal nga wax jàmm jàmm ñëwaat ci Sénégal képp koo xamante ni am nga ay tànki jàmm yoo xam ne boo ko doxee Sénégal amaat jàmm génnal nga dox tànki jàmm yooyu jàmm ñëwaat ci Sénégal parce que ku xool ñaari fan yi xam ne Sénégal metti na ah, te lii ay tragique kawo la parce que déjà da ngay génn am soxla ju boutique ñu ne la noo boutique bi tëj na loolu trasu kaaw la nga am soxla war koo dox ñu ne la non oto yi dawul ndax tali yaa ngi tàkk Auchan yaa ngi tàkk marché yeeg lépp a ngi tàkk te ñu ne fii Sénégal réewum jàmm la xam ngeen ne xale yi dee démb Poste Thiaroye yi metti na trop te ñi dee ay sénégalais lañ ñu ay indien duñu ay japonais ay sénégalais ñoo dee ba léegi monsieur le président waxoo te yaa waral coow li yow monsieur le président Macky Sall yow yaa waral coow li parce que munoo def sa discours xaw ma sa conférence dialogue amoo lenn loo ciy wax waroon a stabiliser dëkk bi waroon a indi jàmm waroon a kaf xale yi ak ndaw ñi mais defoo ko monsieur le président da nga leen a wax ni su ngeen bañee ma am troisième mandat da may neexal da ngeen may neexal ci njekk ak teraanga ma bañ a def troisième mandat loolu yëngal xolu xale yi xale yi wàcc tali bi monsieur le président yow sax attends bu ñu la doon neexal ñun ci nan lañ lay neexalee yow lan lañ lay neexalee mais neexal la weesuwul ñu yëkkati palais de la palais de la république teg ko ci say loxo nga dëkk ca ñun ñu dëkk ci braag yi dëkk ci taataa yi dëkk ci banlieue bi ñu jox la pale nga dëkk fa. loolu du neexal neexal la weesuwul 2012 ñu jàmmaarloo ak policiers yeeg gendarme yi di xeex ak ñoom ñu ñuy sotti ay ndox yu tàng ñuy ñoom ba yëkkati dëkk bi faqat ci Ablaye Wade teg ko ci sa loxo monsieur le président loolu du neexal. neexal la weesuwul géej gi nga xamante ne ñun ñoo ko moom nga nangu géej gi ci ñun jaay ko chinois yi ñun amatuñu benn jën bu ñu lekk loolu du neexal neexal la weesuwul ñun mason yi mécaniciens yi plombier yi ñëpp ambulant yi ñooy fay impôts yi di la ko jox nga koy dundee loolu du neexal neexal la weesuwul monsieur le président tey ci tali bi fii boo fi doon dox yow ak say oto nit nekk ci otoom di waaj a dee monsieur le président yow la ñuy bàyyi nga romb di romb di romb ba jeex tàkk yow ak say mutaar ak say gendarme ki ne ci otoom bi waaj a dee sax day dee mais yow yaay romb ndax warmaal gi ñu la warmaal lool du neexal monsieur le président monsieur le président génnaatal nga def discours wax ñu ñun ban genre neexal nga bëgg ñu neexal la ko ñu wàccoon nañu ak yow yow yaa ñu deseel la ñu waroon ak yow yëpp monsieur le président def nañ ko yow yaa deful li war ak ñun jàmm xam nga niñ koy indee xam nga nañ koy waxee génnal nga defaat discours dalal xelu ndaw ñi parce que am na ci ñoo xamante nag génnatuñu seen kër te am na ñoo xamante ni bu ñu génnul ci du tàkk seen kër te cas bi mi ngi commencé critique cas bi mi ngi commencé critique xale yaa ngi dee poste Thiaroye li fi dee du yoon ñi dee duñu ay chinois duñu ay japonais ay sénégalais lañ monsieur le président génnal nga wax da ngaa war a wax respecté leen sénégalais yi sale comportement franchement man xàmmeetuma sama dëkk xàmmeetuma sama dëkk bu ñu demee ba maanaam bu njëkk Sénégal boo daan dégg nit dee na nii wala si ay manifestation bopp boo daan dégg ñu ne nit te xo daawuñu sax dégg nit dee na nit gaañu na nga daan dégg ci manifestation te daawu nekk ay gaañu yu metti mais depuis démb ak léegi nii ñaata nit ñoo fi génn àdduna te la pire mooy ay ay ay bal réel lañ leen di rayee ay bal réel force de l'ordre naka la mën a jàkkaarlook koo xamante si nii xeer la yore mu war koo mën a dóor réel ñun réew mi fan lañ jëm fan lañ jëm fan dañuy seetaan lii nii muy gën a développé di gën a augmenté ba kañ on a même plus l' accès à à à l' internet en fait suñ parents yeeg suñu wayjur yi nga xamante ni ñoo nekk outside amatuñ pour mën a wax ak ñoom seulement pour ne pas que nit yi di xam information yi wala liy xew ci dëkk bi. ak pexe boo leen mënti teg ak pexe boo leen mënti teg laa leen wax de nouvelle technologie bi mi ngi fii nii te ñun duñ baissé les bras tant que dëkk bi mi ngi am ay jéeya dañuy nekk si nit ñi nga xamante ni ñoo koy wane. lii fi mu toll nii li xew ci réew mi képp ku ci noppi nga am baat koo xamante ni même bu fekkee am nga cinq wala dix personnes yu lay suivre nga noppi ci naa féq nga parce que yaa ngi nekk ci réew mi yaa ngi xam li xew ci réew mi yaa ngi xëy di doxi say soxla di gis li xew ci réew mi fi mu toll benn business doxatul kenn liggéeyatul am na ñoo xamante ni buñ daan xëy pour am 1000 francs sax da dem pour defi gardiennage wala ñu dem defi mbindaan mënatuñ koo am instant bii nii parce que dëkk bi lépp taxaw kenn mënatul dem fenn kenn mënatul liggéey kenn mën mais mais mais li ban genre dëkk la li ban genre gouvernement la dañuy seetaan nii nii ñu rey suñu ndaw ba mu jeex bu fekkee da ngeen bëgg ndaw ñu jeex léegi ne loo ñu bombe atomique wala ngeen yóbboon bombe nucléaire ñu bombardé dëkk bi ñëpp dee yoon mais ñun duñ noppi dëkk boo xamante si nii booy wax sax da ngay a à chaque fois da wax nit ci dëgg de da ngay gis ñun nit ñi naan la ay noppi balaa ñu lay jël si ci pays boo xamante si li ñuy nekk nii lii nii ku ñu waxoon que ni Sénégal cinq ans si ginnaaw wala six ans si ginnaaw dina agsi fii duñ ko mës a te lii xew nii du Iran du biir Sénégal lay xewee fi mu toll nii xol kenn neexul nit ñi dañoo sonn waayoo